sëñ bi Abdourahmane Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. bon ma it maa ngi leen di sant yéen waa Rewmi FM di mhm. ni man maay Abdourahmane Gueye mi nga xam ne maay ci victime SNAP yi nekkoon sénégalais mag Demba Gueye nga xam ne ñaari sénégalais ñu ngi ci dossier yi. Mhm. justement wax nga ko euh, ñu dégg leen ngeen di yëglu lu waral yëglu gi. waaw yëglu bi boo ko gisee nag euh, ndax yëf yi dafa yàgg. Mhm. ndax euh, bi ñu acté ISENABRE union africaine ban créé euh, la chambre africaine. Mm-hmm. à Dakar. Mm-hmm. Sall parce que au temps de Wade Wade ne voulait bi Macky Sall ñëwee daal di ci taxaw. kon ubbi la chambre africaine ñu ko à Dakar parce que fii la ISENABRE nekk. Mm-hmm. donc bu defee loolu effort boobu bu defoon ban acté ISENABRE ñu daan ko ko daan. Euh, mu ñu war a fay victime yi léegi nag li tax may man ma def interpellation parce que sénégalais la bokk ci dossier yi Demba Gaye sénégalais bokk ci dossier bi te dee na Macky Sall moo war a nekk président la de de mooy war a yor président la chambre euh, de l'Union africaine mm-hmm. pour un an donc ma xamal ko ni ko rek man moo tax may wax ndax mu taxaw ci ni mu taxawee woon ci àtte bi waaw mu taxaw ci ba nga xam ne victime yi danañ jot seen indemnisation. Mhm. parce que ci la bokk. donc Union africaine moo waroon def effort boobu ba tey deful dara ña fa jaar ñëpp kenn defu ci dara donc moom moom laay interpellé man en tant que sénégalais. ci fàttali rek euh, ba ñu euh, tegee loxo après euh, lan lañ leen diggoon justement yéen ñi victime yi. ba nga xamee ne jàpp nañ Hissène Habré ba àtte ko. Mhm. ba dóor ko peine bi ko dóor. mu def appel ñu confirmer ko. Mhm. verdict bi mooy quatre vingt deux milliards pour les victimes. Mhm. waaw loolu moom moo nekk. Mhm. bon victimes yi nag nekkoon nañ sept mille et quelque. ñi nga xam ne eh, seeni kayit dafa leer. ndax ku jëkk dañ doon ay quarante mille morts. léegi nag bi ñu defee recensement seet li nga xam ne seet nañ ko ci kayit yi. ci la DDS ñi trouvé seen i kayit ñu xam ne ñii jaar nañ la DDS ay prisonniers. Mhm. ñii dee nañ ci biir kaso bi ñii libéré man sama ñu man certificat de libération lan ma gisal foofu Demba Gaye certificat de décès donc ñu xam ne ñaari sénégalais ñu ngi ci woon. Mhm. donc mooy set mille et quelque fi mu nekk ne depuis bin àttee Hissène Habré am na ñoo xam ne ñii ñëwoon nañ ci témoignage ñii am na ñu dee caab am na ñu dee. te boo nekk nii jot seen koppar. ah. ma ne te duñ jot seen xaalis. ah xanaa seen i mbokk waaye fi mu nekk ñoom fekkee wuñu ñëwoon nañ def témoignage mais am na ci ñu dee parce que toujours maa ngi contact ak ak ak ak ak ak euh, Clément Abé Fouta président des des victimes nekkoon victime moo may jox tous ces renseignements. tey mu mel nii euh, fonds boobu nga xam ne dañ ko waxoon créer ngir dugal ci xaalis gi ñuy fay ñii di victimes yi euh, 82 milliards 5 millions rek lañ ciy daal di dugal nan nga jàngatee lu néew loolu. waaw loolu cinq millions euh, yi Union africaine moo ko dugal ba mu dugalee nag ni dugal na dafa waroon a continuer hmm. dafa waroon a continuer ndax am na ñoo xam ne ñi ay ay bailleurs de fonds Union européenne Nations unies ak de ONG yu mag yi ñoom ñëpp ils sont euh, taxaw nan pour bëgg a contribuer nan defoon ci àtte ba hmm. mais nag Union africaine daf na teg na cinq millions mais ubbiwul benn bureau boo xam ne bi pour wane woon ni léegi bureau bi mooy Euh, occupé affaire fond bi. léegi nag euh, Tchad dem nan Tchad comi envoyé nañ fa commission dem nañ Tchad ban demee Tchad Tchad jox na leen benn immeuble boo xam bi nañ ko installé. Hmm. ban fa installé Clément Abdou Fouta ànd na ak ñoom ak avocat yu fa nekk de gis nañ euh, local bi waxtaan nañ ñoom ñu ne dañuy ñëw pour ñëw installé. dans quinze jours dans vingt jours mais booba tey dellu wax ne ma booba tey ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di xaar dellu léegi yow lii noo ko jàngatee. lii yëpp waaw loolu lépp nag li ma ko jàngate mooy euh, xam nga Afrique moom da ngay waaru. Mhm. Euh, affaire politique da cee jaxasoo wala dégg. Mhm. parce que it euh, bari na ci ay chef de l'État yoo xam ni li sax neexuleen ma a bi acte bi parce que bari na yaa ma gën a xam Afrique président yi seen seen liggéey am na ci ñoo xam ay dictateur lañ ah. mhm. donc. union européenne daal ak union ak ak nations ñoom ils sont prêts pour joxe kenn wa war a joxe. te ñoom pare nañ pour joxe ndax dañ leen a jox garantie yooyu euh, certifié leen ne ñoom bu fonds yi buñ ci taxawee rek ñoom dinañ duggal seen koppar. am na ci garanti ndax li Burundi moo topp loolu lépp waaw ndax moo daan topp dem na fu ne ñoom. Mm-hmm. ñoom ils sont amu ci lu ni lu ni kii. Canada Belgique ñoom ñëpp ils sont prêts. tey euh, ndax am na sens ñu ci dossier bi euh, ñu daal di tëjlu euh, kenn baña a àggali la nga xam ne moom lay jugement bi digle. ah loolu moom yaakaar gëmoo ne yaakaar yaakaar ko yaakaaruma ko ba keroog pënd bi wuri yaakaaruma ko moom duñ bàyyi tey duñ bàyyi ëllëg. Mhm. xanaa ñu dee. waaye fu jaar ñu harcelé leen maa ngi ma nag li may déglu mooy Macky Sall laay déglu. mandat bi pour Union africaine fu muy mujj ak victime yi. justement nga interpellé ko ci yow bii ndi sénégalais moom muy njiitu réew Sénégal fas yéene jël euh, nekk ci bopp Union africaine comme ni nga ko waxee tout à l'heure euh, tey seen yaakaar si moom ndax jàpp ngeen ne dossier bi euh, dina am ah. avancement ci nguur googule man daal bu doon moom la moom laa yaakaar moom suñu yëpp man tàmbale ko ci man ak famille Demba Gaye ci moom daal lañ sukkandiku parce que am na ci doomam yu ci nekk. Mhm. doomi Sénégal donc war na cee taxaw du yëfi caajee rek. ndax ba ngeen réagir am ngeen ci benn feedback benn retour bi leen di wan ne man dégg naa seen euh, ñaxtu. waaw ah, xëy na loolu danañ ko danañ ko dégg xëy na dafa gu ko waaye xam naa dégg na ko. parce que déjà bind nañ ko lettre. tey bi sëñ sëñ lan la leen yoon may euh, bu Union africaine taxawee ci tànk yi gën a yéexal euh, li nga xam ne moom ngeen am ci wàllum gëdd. ah ban yoon la ñuy defati parce que <laughs> yoon moom moom moo war ban yoon kon yéen déglu rek ngeen am pour def léegi. loolu ñu mën a teg suñu tànk. tey ngeen yéglu euh, ndax da ngeen di waajaat leneen ngir ñu gën leen a mën a dégg ci mbir mi. waaw xam naa du ñàkk parce que léegi dañuy xaar comme que def na lii bon euh, organisation des droits de l'homme yi ñi ngi dégloo xëy na du yàgg bu ñu demee ba ca kanam parce que waa euh, victime yi caat yi ñoom it ñu ngi préparé benn yëngal seen côté. ba tey tamit amul kenn kenn kenn ki nga xam ne jot na ci kopparu indemnisation yi. sept millions yi nga wax amul ci kenn ku jot un franc amul ku ko ci jot. du kenn am na ci ñoo xam ñi dee nañ bu yàgg ca ñëwoon nañ ci ci ci ci ci procès bi. tey def seen témoignage. ay caaji. kon ñooñu buñ leen di indemniser euh, nu muy demee xanaa seen i euh, famille ñoom ñooy jot mbiri ah, waaw seen i xam nga mi mel ne comme comme Demba Gaye famille am ngi fii mooy Sata Gaye moomu nekkoon ak man ci réunion bi moom moo bokk ndey baay. waaye tamit ndax gis nañ nga ne autorités yi farlu nañ ci ngir yéen ngeen jot ci koppar gi. de toute la façon man li nga xam ne moom la xam ba professeur bi amee ba nëgëni interpellé naa fi nag le président bind naa ay lettres. envoyé ko à la présidence man mi yóbbu naa ko ba mu dem mais juste boobaak tey damaa mujj déclaré sax bindatuma yaa ngi dégg. Hmm. ndax euh, en tant que sénégalais ma bind lettre lu mel ne ay ay victime lu bon bon xaw ma président jot na xaw ma jotul. waroon nan ma tontu la ñu wax ma leen mais boobaa kay aw ma ci benn benn benn firnde envoyé naa fa lu mat quatre lettres yàgg na. Hmm. waaw tey nag moom xam naa ni moom xaw ma gis na lettre rek xaw a gisul lettre waaye tey moom dégg nañu. <laughs> ci lettre bi nga xam ne moom lañ ko envoyé aussi UFC ak les gens de droit de l'homme ñi ko signé ñëpp moom jo jot na ko. mbir yi yàgg na ki yoon teg loxo moom tey génn na àdduna ndax li ni mel amul dara tamit lum mu soppi ngeen jàpp ne ci dossier bi. non moom xam nga moom moom bon yàlla ko yàlla yërëm. Mhm. Mhm. bon li nga xam ne moo am mooy. atte nañ ko teg nañ koy daan mhm. euh, de jël ko yàlla jël yëpp du tee daan yi moom euh, la ko la tegee ko ci moom mooy mooy mooy mooy kaso ba mhm. waaye indemnisation moom ci justice euh, dara mënu ko dindi verdict bi moom dara dindi parce que bu doon dund it dana verdict bi day continuer perpète lañ ko tëjoon comme que yàlla dogal yàlla yëddal na ko yàlla ko yàlla yëram moom amu ci benn soppika soppiku léegi kañ i Union africaine moo war a def effort pour indemniser victimes yi bu fekkee ne nag indemniser euh, euh, victimes yi jotuñu dara tribunal bi moog zéro yam ci yaakaar googu leen ndax am ngeen yaakaar tamit ne euh, du yàggati ndax li ngeen toog kat moo ngi bëgg a yàgg. ah loolu de waaw yàlla nag moom loo gis rek dafa am waxtu yàlla ko yàlla gaawal parce que lu lu jot yomb c'est que nag man samay mbir dama koy teg ci loxo yàlla parce que. ba ma nekkee ca kaso ba it metti woon na lool mais ba yàlla dogalee ni damay génn génn naa dund ñëwaat sama njaboot. ca mhm. am na fa ñu fa des. kon nag loolu man dama ko teg ci mbiri loxol yàlla. jërëjëf sëñ bi Abdourahmane Gueye bokk ci victimu Habré yi ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf yow it soxna si maa ngi lay sant di la gërëm. Mhm.